gis sa gis-gis ci Sonko bu njëkk ak bu tey sa dafa wute. non non xam naa baal ma ñëw rek man man man Sonko benn benn bët laa ma sant moom soppi ko dama la soppiwul dara ci yow parce que moom déedéet hmm. xam nga moom su fekkee dañ ko waaj def ko ne mais waruma woon toog dem naa ko fii ma wax li xew hmm. daa waroon wax ne daje na maag moom ci circonstance sax moom nanga ma nanga ma war na mais mais li garaaw mooy yaari yëpp yi tax ma la jóg moom bu jóg bi c'était pour dem pour jàppale tey bu njaay hmm. Sonko mi nga xam ne li mu li ñu ko xam ne mooy maanaam di feeñal lu ñaaw di dénoncer ay détournement deniers publics di dénoncer ay ay ay ay fiscal muy dem di wutal pexe di défendre koo xam ne dañ koy jàpp pour enrichissement illicite jàpp naa loolu waru ko def beneen bi ci des su fekkee daal di moom ci mën pour mu intervenir pour gis pour mu intervenir au président la république pour ñu bàyyi kay bu jaay boobu moom ñuy xeex ne dañoo war demander la séparation des pouvoirs lu ci l'indépendance de la magistrature jàpp loolu warul nekk ci yow ngay jéem a lijjanti président bi dugal loxoom ci loo xam ne. même si bu fekkee moom bu fekkee production morale lañu lañu jaay jàpp naa ba commencé ne politique door a ne on doit combattre le détournement de deniers publics. Mm-hmm. jàpp naa ne toogal ne politique door a gëm ne dañoo war a demander de la magistrature kon yaar yooyu pour dende pour de la magistrature war naa tax la dugal loxoom ci pour li muy gëm li muy wax ne moom la gëm muy Sénégal bi ko ci yore wu sell maanaam xeex ko détournement corruption jàpp naa ne ku mel noonu war naa jombale boppam pour bi maanaam di leefal euh, koo ko jàpp. est-ce que en résumé bu ma la dégloo da nga wax ne euh, Sonko à la fin il ne vaut pas mieux que homme politique yi muy dem seen pratique. parce que li mu li mu def ci mbirum tay bi ngay man personnellement dama koy ñaawlu ci képp ci beneen nit politique nit ki mu ne bu noonu da ñu jàpp nit ci wàllum enrichissement illicite nga jóg di ko sàkk ndimbal mënoo ne réew mi da ngaa ñu am indépendance de magistrature ba tam ba noppi di jóg di dugg ci mbirum mu ngi ci loxo justice jàpp naa lu pour man amul problème bi dafa juum pour mu tàkkoon président dugal ci loo xam ne dafa juum le fait que mu weddi maanaam ñu gisul maanaam woote woon ne dañoo doon mën su fay yëpp yooyu moom ñetti njuumte la maanaam bon c'est à lui de s'excuser et puis de s'expliquer pour pour pour nekk ci la yoon. ah d'accord jàpp naa ne